mooy décoré ndooy jasineer du basin de jasineer la aa bay lan aa bay jalo Bamba Dieng suñu partenaire mu ngi dégg Dakar ak Jaay Jaay moo des Ndiaye Tine moo des Ndiol bàcce ngalaama Ndiaye Tine bravo Kajoor production ndeysaan lii rëy na lii rafet na lii nice na lii lamb jërëjëf lamb lépp loo mën a décorer war koo mën a defar rek ànd nañ ci kontaan nañ ci rafet na félicitation production ndeysaan ñu ngi leen di bu baax ñaari mbër yaa ngi noonu ci digg géew bi. ñaari mbër yaa ngi noonu ci digg géew bi kenn yaa ñu ngi noonu arbitre bi fi toll nii ñaari mbër yi lay xaar ana baay ma joot ñibbi na maa la ko wax day génn stade du ci biti Tapha Tine fu féete ma nga nekk ci meekaay bi dugal loxo bi ci poos bi ndeysaan baay ma joot si ñoon mi rakk baay ma joot la waaye Madj amul ci moom sago ndeysaan déedéet amul ci sago ma nga noonu ndeysaan ma nga noonu ña ngay xaar ñaari mbëri ña ngay dongali Ndaysaan Ndiaye Tine ne noonu ci géew bi Ndaysaan xoolal Baye Mandione ma nga noonu di dongali di romb ci angle bi rek di xaar Mbaye Tine wala di xaar Ndiaye ñu fas yéene laale ñoom ñaar Ndiaye ma nga ca débat déb bi ña nga naan ko ak étireel tiireel bàyyi mu dem lu nar a xew ndaysaan gisuma waa Caaray géej waaye kenn lekkatul gisuma waa Caaray géej waaye actuellement ni tooguñu taxawuñu gisuma waa Bawol gisuma waa Medina waaye ñoomi tooguñu toj na nen Njaay Tine na nen arbitre bi woo na ak Baye Mandione ñu ngi noonu arbitre wax li règlement bi nangu ak li règlement bi bañ ñoom ñaar coup de sifflet moo leen di boole coup de sifflet moo leen di tàqale Baye Mandione Junior moo la féetee càmmoñ Ndiaye Tine bi laaj na ay siisam laaj na Baye Mandione arbitre bi sifflé na mbokk yi dimanche 9 janvier 2022 ndeysaan Kajoor production Baye Mandione Junior Ndiaye Tine stade Diom Iba Mar Diop ñu ngi noonu ndeysaan Baye Mandione féetee leen di càmmoñ Ndiaye Tine féetee leen di joor kii teg garde normal kii def fausse garde ndeysaan Ndiaye Tine fausse garde normal la Baye Mandione fausse garde la bu ngeen deggee garde normal ak fausse garde mooy kii jiital tànk càmmoñ loolu mooy garde normal ki jiital tànk ndijoor loolu mooy fausse garde waaye du dara ci bëre mooy tànk bi la jublu nga mën koo bëree moom ngay teg rek taxaw ñoom ñaar ku ci nekk ma ngay déglu moroomam Baye Mandione aj na garde bi rek di déglu Ndiaye Tine Ndiaye Tine tamit aj na garde bi rek di déglu Baye Mandione ndeysaan ñoom ñaar ku ci nekk ñu déglu sa morom ku ci nekk lan lañ la yóbbee ku ci nekk luñ la yabee ku ci nekk am na luñ ko yabee ku ci nekk am na luñ ko yabee ndaysaan ku ci nekk am na luñ ko yabee Ndiaye Tine ak Baye Mandione ñoom ñaare ngi noonu Ndiaye Tine Baye Mandione Ndiaye Tine Baye Mandione déplacé wu nañ ñëwaat nañ ci digg géew bi dara xewagul cokkaas amagul mépp amagul waaj buy dem amagul waaye en tout cas lu mën a xew ñoom ñaar ñu ngi taxaw rek ku ne di déglu sa morom bàyyi ma ñoon caare la juge caare géej ko indi njaaytin bawol la juge waa Medina ko indi ak waa bawol do bëgg naa jàpp ci loxo bi dóor bàyyi ma ñoon déplacé wu na dañoo nar a bëre bàyyi ma ñoon daa bëgg a dem ndaysaan daw nañ daje daw nañ daje Ndiaye Tine am na ngemb bàyyi ma ñoon Ndiaye Tine caxabal na ko mu bañ wéeraat na ko bàyyi ma bañ na bàyyi ma bañ na Ndiaye Tine bàyyi ma ñoon Ndiaye a ngi ci suuf bàyyi ma bañ na Ndiaye Tine def na action bu am solo sànq mais Baye Mandione da koo teggi loolooy bëree dafa na ko wala déet dafa diis takk na ko Baye Mandione takk na Baye Mandione takk na na lu laaj Ndiaye sol na takk ba rëcceeku na Ndiaye Tine door na déplacé wu nañ ndeysaan stade bi yuxu nañ xeex amagul waaye bëre nañ. Baye Mandione a koy déglu ma ngay seere téere bi Ndiaye Tine ñëw fa mu taxawoon taxawaat fa ndeysaan góor balaa nga koo yëpp ñam ko ñaari xale yi dañoo fas yéene wane seen bopp fu ñuy mujj Ndiaye Tine Baye Mandione Ndiaye Tine Baye Mandione Ndiaye Tine dóor na sànq rek daw jàppante ñu daje ñoom ñaar waaye ku ci jël coup mën naa jeexal sa làmb Baye Mandione ndeysaan ak Ndiaye Tine ikiri ba wal la nekk daw na jëli ko dóor na na ñoom ñaar Baye ma Ndiaye Tine Ndiaye Tine fàqan na ko Baye Mandione rëpp na bañ daa bëgg a samp bopp bi wala déet yanu na ko door na ko ci suuf la ilaha illallah eh la ilaha illallah eh Ndiaye Tine na bàyyi ma doon jël Balla Gaye daanoon Modou Lo moom la Ndiaye Tine daan bàyyi ma doon la ilaha illallah bàyyi na jël bu ko bett waay waa Bawol jóg nañ Bawol yëngu na demontal